bi nga xamee ne xale yi daayira bi ñëw nañ gis ma pour ma waxtaanee leen ci maam Alassane ak maam Coumba def ci benn exposé ah muy loo xam ne lii lu ma sawar ndax lan ah ñun dañu ne ay tuut tànk rek di gëstu si li nga xamee ne mooy suñu histoire maam Limaamul Mahdi alayhi salaatu wa ah maam Limaamul nag alayhi salaatu wasalaam ñi ko meññ muy maam Alassane maam Alassane Thiaw Laye maam Alassane Thiaw ah, maam Alassane Thiaw nag mu ngi bàyyeekoo ci yi nga xamee ne mooy maam Teñ Mafan Thiaw maam Teñ Mafan Thiaw moo jur maam Samba Ngañal Thiaw Samba Ngañal Thiaw moo jur maam Xayan Thiaw maam Xayan Thiaw jur mam Sombel Thiaw ak maam Déthié Thiaw maam Déthié Thiaw moo demoon kunun jël fa ku ñuy wax mam sop Ndiaye mo mu am fa à, maam ờ, ờ, Ibrahima ibuseni Séni Ibrahima Séni à, mu am fa Matar Ndumbe mu am fa xëri mu am fa Mathiaw am fa Alassane ak Séni maam Alassane moomu nag bi nga xamee ne mu di dëngaañ mu bokk ci birëb dëngaañ birëb dëngaañ boobu ku ñuy wax maam Caba Sàmba moo ko jur maam Caba Sàmba maam Ndeye Boucary Diagne maam Ndeye Boucary Diagne moomu ku ñuy wax maam so so Sonda Jomba moo ko maam Sonda Jomba moomu maam Ngoone Ndaw maam Ngoone Ndaw maam Yuga Yuga maam ñu bokk ci biirab dëngaañ ah maam Alassane Thiaw nag mi nga xame ne moo dem Ndoyeen moo dem Ceween Modou Ndoye mu jël fa ki ñuy wax maam Kumba Ndoye sa birab xaagaan birab xaagaan boobu nag ku ñuy wax maam Joor Jaañ ak maam Janoor Jaañ ak maam Kam Jaañ maam Kam Jaañ mooy maamu sanga bi nga xamee ne moo toog fii tey di sëñ Mbay Laay maamam ak maam Joor Jaañ ndax maam Janoor Jaañ ñoo bokk ndey ak maam Paate Jaañ di seen baay ah maam Kumba Ndoy bi nga xamee ne dem na cawen ah, mu am fa ku ñuy wax maam biram cu maam biram cuur caw maam biram cuur caw ak maam Seydina Limaamu am fa maam xëri caw am fa maam ayta caw maam li maamu dëkk alayhi salaatu wassalaam moo dem sàmbeen jël fa ñuy wax maam mari sàmb mu am sa maam ñangulaay mooy maamu eh, sidi sëñ bëy mi ah sëñ sëñ ah Seydina Issa Laye Gueye maam Seydina Limaamu jóge fa dem mbengeen ku ñu wax maam Fatim Mbeng mu am fa maam Seydina Issa Rohela mu bokk ci biir Boner mu jóge fa dem sa maam Fatma Diop maam Fatma Diop di dorobe mu am fa ku ñuy wax maam Seydina Mandione Laye di maam si maam sëñ Bay Laye ah, mu jóge fa aussi demaat ci ki ñuy wax maam tuuti si la mu dem xaagaan bokk mu bokk ak moom si biirab xaagaan mu am fa ku ñuy wax maam Ababacar Lay ak maam Oumy yaakaar naa ne soti maam Oumy Lay ngi ni toog ñoom Seydina Diagne ak ñeneen ñi ci ah man miy wax ak yéen tamit ah man it ma bokk ci biirab xaagaan bokk ci xeetu maam li maam parce que maam li maamu maamam ak sama maam ñoo bokk benn ndey donc euh, am naa mbégte nag moo xam ne mi tey ah lii nga xam ne waa tongoor jàngleel nañ ma ko ma ñëw fii di waxtaanee ah li nga xamee ne mooy histoire bu maam Limaamu ah ñu am si mbégte mu mu wóor a wóor waaw Tóngoor nag niñ ko waxee maam Limaamu Tóngoor di woon Tóngoor gi tongoor boobu tongoor mu ngi ne fii si booru Ndiouffène fii nga xamee ne fa la Baay Ibrahima Thiaw ne mooy foofu la tongoor ne woon mais Tóngoor gi bi nga xamee ne peste bi jeex na en 1914.

asalaamaaleykum wa rahmatullah loolu laa ne woon naa ko ci doon